comme nous ma ko dans ci nasaraan tey bu wax na du politique du dara man sportif la ma jiite équipe bu ñuy wax Casa Sport bëgg am ay talent té talent yoyu xamna ni am fi amna Casamance parce que équipe Sénégal équipe nationale bo jël muy U17 U20 U23 équipe locale bëri na fa ay xalé yi nga xamné Casamance lañu mais xale yooyu dañuy rëcc souvent parce que mënuñu leen parce que amuñu cadre bu len di mais aussi accompagner wuñu len mais li tay malgré amuñu ay dal malgré amuñu condition yu baax xale yaa gor góorgóorlu fu ne di qualifier di gagner ren ñun ñoo gagner nawetaan na phase nationale bo jëlé tamit euh, ligue régionale yi Ziguinchor moo joué final contre Thiès pour dal football amna fi doole parce que bo demee ci deuk amna na gox bu nga xam ne moy regorger ay athlètes bo demee Brésil yaay région bu nga xam ne foofu la les joueurs. joueur boo demee Sénégal c'est la Casamance foofu la ñuy les joueurs. moo tax ñun war nañ leen jappalé pour que mu am yenen Sadio Mané mu am yenen Krépin Diatta parce que kenn musul un jour ki gëna ay adina wala ki boxing si ñi gën a aay mën na joggé Bambali mais donc lolu bu amé gëm naa ni fii tamit muy Kanjala fii bala ñaari at di nga dëgg joueur bi nga xam ne tamit jaar na Casa Sport jaar na équipe nationale nekk na professionnel ba ñëwaat encore kanjalan sargal waa Kanjala parce que gis ngeen Sadio Mané lu mu nekk di def si dëkkam te loolu la ñu bëgg loolu la ñu parce que lépp mënuñu ko xaar si état bi te bu ñu amee ñetti professionnel ñi nga xam ne encadré nañ leen moo tax moo war a gërëm ñu yore mouvement nawetaan parce que mouvement

chaque fois Stéphane est équipé coloban, des jàppale wa Koloban à ñaari at yensi si bir. mu am ñi nga mel nañ ni Stéphane ni pour ñu mëna a wa tabax hôpital tabax ay école loolu ñaax euh, ñeen président bu parce qu'il y a pas une entreprise tay bu entreprise football.